ñun ñi fi taxaw nii ñoo dëkk ci quartier bi ñuy wax extension 1 riverain de l'aérodrome. Nous sommes dëkk ci booru aérodrome bi démb nag dañu autorités dañ ñëw gouverneur ak préfet ak mairie ak euh, la DSCOS ñëw à notre insu à notre grande surprise sans convocation ni avertissement ñëw fekk suñuy famille ñi ca ñi ci jotoon a am chance sax ni ñi dellusiwaatoon seen i kër alors ak ñi nga xam ne jege nañ seen i kër ñoo jot tombé ci ñoom ñuy ne dañuy def soi-disant recensement pour que ni alors euh, aérodrome bi dañuy def dañuy def extension pour yokk alors li ñu ci métti ñun mooy amul ñu préparé une population bi dara dañu xey rek alors and ak seen gangor, ak ak des euh, forces de l'ordre alors ñëw dans nos maisons fekk suñuy jabar ak suñuy doom alors terroriser len parce que liñ mëna wax moy nit boko ko ci këram mu dëkk fa 15 ans 16 ans alors nga ñëw fekk fa njabotam wala nga fekk ko fa même bu dé mom sax nga ne ko sa kër gi dañ koy toj sans délai alors koku ray nga ko je vous dis que parmi nous amna ci ñoo xamné nelawuñ c'est sûr que nelawuñ demb amna ci ñoo xamné suñu famille en commençant par moi sumay dom yi ci goudi ñu naan ma papa boo daanee kër gi est-ce que dañu yóbbu xar yeeg yoyu pour yeen ñi xam ka woon li ko dalee rond point ba ba ci euh, miru aérodrome fi mu jéxé jëm ci route nationale bi ba danaka alors essad essad stade Koundou. en délai bobu nak yeen ñi di seetaan ak yeen ñi ñu duñu poser euh, euh, les questions sans délai ñun ni ñu koy ñun euh, français moy dar dar suba ngay gën même bu fek le le le commandant a dit que sans délai mën na doon six ans mbala six mois mais ko fek ce kër ne ko da fi fiy génn sans délai pour mom suba la donc sans délai bi waaw euh, kii la mais bu demee ba nga xamné ni alors raison de sécurité yi ñuy wax mom la alors ñu jaarale ko ci yoon alors on accepte on acceptera de de partir d'accord pour dem. bu naree buñ ko jaaralee ci yoon parce que gis nañ ay ay ay ay ay ay déguerpissement yo xamné ni nii jaar na fi jaaral nañ ko ci yoon notamment euh, le projet de de de de la SD, de euh, de d'ONAS ñi nekkoon ci bande d'Aouzou bi dañ leen dédommagé te alors procédure bi def def na plus de trois ans te ñëpp lañ dédommagé légalement dégguloon fi benn coow ci bande Daouda te mo gënoon gudd de gën a ëpp population oui